les ci ay waxtu yi nga xam ne nii réew yu ne ci dundub Afrique bëgg nañoo yombal paj mi ñu bëree jàpp ni ngir loolee mën a antu faaw rek paj mi mucc ay yokk seen euh, seen crédibilité maanaam nit ñi ni ñi nit gën leen wóolu xam nga hôpitaux yi dañuy fonctionner mais dañu leen war a gën a wóolu wóolu bi mooy ñi nga xam ne usagers yi lañ mooy ñi feebar ñi ñu gën leen wóolu. Euh, état bi gën leen wóolu partenaires yi gën leen gën leen wóolu. réewum Sénégal nekk ci tànku tëral ab feuille bi nga xam ne ni day tax ba këru fajukaay yëpp mën a certifié wu. pour qu'on puisse décliner une institutionnalisation. du dara lu dul fësal doxalin bu soxal wàllum qualité. fii ci Sénégal itam daal di becc li nga xamante ni mënees nañ ci sukkandiku ba barabu fajukaay yëpp tënku ci tëralin yu bees yi. partagé et accepté par l'ensemble des parties prenantes. bileb certification nag day tax ba ñu gën a ñoŋal nu ñuy toppatoowee waay wopp yi. ku ne qualité ne kaaraange itam. ak lépp li nga xamante ni nag loolu lay laajte maanaam dalal gi orientation bi ak toppatoo yenn équipement yi ba ci sax jumtukaay yi loole mébét bi moo di away jëfandikoo bi nekk ci ndorteel gi ba ci njeexital gi. gannaaw bi nga xam ne ni kuréel bu ëmb mbooleemu hôpitaux africain yi bu océan Indien ak i Caraïbes amalee ab taxaw seetlu ci nu këru docteur yi di liggéeyee mu taxaw temb ngir seen certification ndax jàpp na ni ngir paj mi gën a mën a yomb si ñëpp faw rek ñu jiital nit ki te loole day aaju ci ñu dogoo ci qualité ba ca war.